it bokk ci weeru muharram nekk weer wi njëkk si atum jullit yi ñu di ko wax si arab ashura ñu jàpp ko si fukkeelu fan bi ñu war cee màggal lii di tamxarit bari lool ay ngëneel ba tax ñu di si sàkku di julli di ci woor seeti ku feebar raay boppu jirim ak yeneen ak yeneen sëriñ Abdou Lahad Niang xam-xamam màcc lool ci wàllum diine mi ngi àddu di ñu xamal njariñu tamxarit. weeru tamxarit nag yu bari da cay fés yoo xam ne mënut xaj ci benn jotaay jumbul waaye lañ ci mën a tënk mooy te fes ci lool mooy fukki fan yu njëkk yi dañoo bëgg lool ku koy wor maanaam fukki fan yi muharram yooyu wala ñetti fan yi muharram dañu bëgg ku ko wor ak fukki fan yi ñëpp dañu bëgg ku ko wor euh, te loola gën a yokk ak jaamu yàlla lañ ci jublu benn ñaareel ba mooy ci biir fukki fan yu dafa am xissa bu yéwe boo xam ne da ca xew te histoire du ko fàtte mukk mooy ci lañ rey li ëpp ci alu bayt rasulullah salaatu wasalaam te ci ki ca gën a fis muy imaamu shuhada di xuseyn ibnu ali ci fukki fan yii ci ci muharram ci lañ ko rey ca balaa muy xissa boo xam ne saa bu ñu la ko nettalee na mu demee say ronkoñ dana tuuru keroog bi ñu ko reyee dagg bopp ba zeynabul kubra di zeynab bintu ali dafay yuuru ba fa baatam yam woo na Mouhamad Ousseynou ngi ni ñu rey ko ci àll ba ay doo ay say doom a ngi ni jàppaleen bu mu jafeel yow ki yàlla yónni kon xissa bu siiw la boo xam ne nii eh, dañ koy fàttaliku ci biir fukki fan tamxarit yi waaye bu ñu ñëwee fii ci biir Sénégal nag tamxarit bu ñu ko waxee mooy juróom-ñeent fa dafa am lu ñu tuddee tamxarit ak tamñarit waaw tamxarit bu ñu ko waxee mooy juróom-ñeenti fan guddi maanaam fan bi guddi googee bés sedd fukk bés fukkeelu fan ba guddi gu la ñu tuddee guddik tam xarit bis ba ca tegaat la ñu tuddee tam ñarit tam xarit nag euh, daara amoon na ca paar boo xam ne daana ko ci daana ko ci def daara boobee nag bokkoon na ca ya nga xam da ko ca daan def yenn yi ay aadala la mooy la ca gën a fes ci wàllu diine mooy koor mu woor woor moom fes na ci man nga xam moom ñëpp bokk nañ dëpp ci ne bëgg nañ ko ko woor am na ci yeneen yoo xam ne ay borom xam wax nañ ko ci mu yiñ ciy defaat tusngalu bi ak lewiku gi mel noonu ak si ziyaara ci borom xam-xam laal ci bopp jirim waaye yi nga xam ne ay aada yoo xam ne moom ndax bi yéene buñ ko waxee buñ ko waxee sëñ bi bi mu koy nettali ci biir téere mi da koo nettali ci siixa boo xam ne ni siixatu tamrid la man bu dee siixatu tamrid nag mooy loo xam ne nii dafa wax ne waxees na ne nangam ak nangam am na ñu ne day dàq nangam day def nangam sëñ bi wax na ko noonu pour wan la ne dañ ko ci faral di def ba noppi ah, leeral ci ay illa illa ya tax ñu di ko def bu dee lal bopp jirim mooy nemmi ko ko jàppale ko ngir jirim dañ ko war a jàppale ziyaare borom xam-xam boo xam ne day jëfee xam-xamam la ci diine yéen mënees na ko am na yoo xam ne dañ koy def ca cosaan la aada woon waaye dañ cee dugal lu ci bokkut jaxasoo sol góor góor yi sol colub jigéen jigéen ñi sol colub góor ñi jaxaso loolu moom mardita bi ak yeneen yañ ci raxaat ci biir ñu ne bu ñu xëyee boo lekkee ba suur da ngay këpp waaw këpp këpp ñàkki ñàkki kersa la ak ñàkki tegin ndax loolu mooy la yàlla defal la teranga nga war na ko ba mu jeex foofu këpp bool bi nag loolu du du du du du ngor du fulla du fayda ak itam ñu ne léegi bokk na ci li nga xam day may wér gu yaram mooy boo boo lekkee na nga ci bàyyi benn kolkol boo xam ne kolkol ba man da nga koy jaxasee ndox boo xëyee nga sëlmu ko loolu boo boo ci ñàkk ji doxee ñàkk ba diw loolu saltale loo xam lislaam dafa koy tere yooyu ak ñu ne la boo xëyee da ngay xool weer wi maanaam jant bi da ngay jàkkaarloog Fatimatu muy fóot foofa waaw yi yoo xam ay xuraafaat la yoo dara lu ci sax amut bu ko defee na ci biir euh, tamxarit li nga xam ne warees na ko cee jàngate moom li ci jiitu ma jullit bi jàpp ne euh, ñëwal beneen at a ngi boo xam mi ngi tàmbali te xamut buy jeex si dana ko fekkam déet loolu lu mat a bàyyi xel la ndax man ma weeru tamxarit lam lay jox mooy fukki weer ak ñaar na bu xeet ci sama dund ma tàmbalee yeneen fukki weer te fukki weer ak ñaari yi xamu ba xam dana jeexam déet loola bu bu ko nit ki xalaatee ci xalaat boobu dana gën a farlu ci gëm yàlla te moytu lépp loo xam ay yàq la li may mujj na mooy Tuubaa gi moom lépp lu diina jàngale nañ ko jël tayam ca leneen lu aada andi na lu ca rafet ñu jël ko la ca bon ñu delloo ko borom aada yi rek. si tam xarit daan nañ si faral di nemmeeku lii di tàjjaboon lislaam nanguwu ko waaye kii di Gora Ndiaye di xam ne ne aada la yu fi maam yi bàyyi. dëgg la am na loo xam ni xañe diine wàccu ko waaye aada ju fi ah, la ma ngi la def nag am na ci xam def ko wàññiwu lu bari jamono léegi nag bari na lu xew ci jamono léegi cee tànk-tànk ak i erreur yu bari di wàcc. ñaar ñaar bëgg a tuxal daf dafa mag ña la bëgg na leen yeneen yu bees ndax nag wax dëgg yàlla lekk ci la ba noppi di di këpp loolu diine joxewu ko waaye xam nga mag ñi lu ci jubloon ay léemaay léemaay la woon de léemaay la ci mag ñi jubloon ma ngi tam daan wax naan bu jant bu jant balaa jant sa timis bu jëkkee ci jàkka ji julli ni mi ngi julli ji bu sëmali di ko fekk ndabul cere ji tege booba ab këll ab xar këll cere la def cere ji cere jëleen ko daa mooñ léegi na cere da nga dem jël ci marché ba rek am jaay mi cere tey tam xarit du loolu de li fi mag ñi baan nag bu ñu ko rek gis ko mag ñi danaan pare mooñ cere ji tay ko teg ko ci digg reeru bi dajale ñëpp li ci jubloo naan bu kenn ci àll bi ndax laal nga dala jàpp boobu xam ci jublu bañ xool ñëpp reeraloo benn bu reere ba nopp mag ñi ne toog ci diggante bi toog tàñ njaboot gi bu góor gi bu jigéen ñi soññ leen fàttali leen ñu ne ah, at mi jàll na de fukki weer ak benn jàll na ba ñaar dugg na menat ñi war a ruuji ruuji ñi war a noori nooraani ñi war liggéey liggéey ñi war a defe leen defe leneen tàggat leen soññ leen ñu ne nag ci guddi gi sama ñaar ñaar guddi gi lixlaas yi nga la dégg ñu bari ci ko nga jàngale nix may nix may yu bari ci guddi gi nga jàngale nga xam ne guddi googu boo xoolee loo mag ñi daan këpp ak yooyu ak yooyu ak du soññee du dara ay limay la léegi nag diine dàq na ko diine nag moom daa gën lu ne waaye li coolee bari bari loolu ak barkee loolu ci loo xam ne mag ñoo ko bàyyi woon yàgg na tusmal dafa jaadu loolu moom jidani ko dale mun tamaxarte ba xëy bi suba gi daa gis mag benn kol ko benn kol ko lu cere teg ko ci bool bi fanaanal ko ci mag ñi dañu boo coraale sa ñaari mbaaram laal ko say at mi doo waneen te yoon na maanaa mag ñi ko wax de doo ci waneen at mi lu mu génn ñëpp taajam moom géwél xam mooy nag taxaw ci penc mu di gërëm ne ko fees ko jël cere moom dem yoonam toggam ñi xam ak cereem reer loolu géwél am bu ñu amul géwél amul géwél amul naar amul loobe moom ëllëg ñëpp ñëpp ko doon def moom gi di nga gi xaajee doo xamee kenn ku nekk ci góor gu baas am Thierno Faye solub taay ba solub sipp mu sóoru tus ngelaw ah di xooxe jigéen loolu ñàkk fayda la xam nga lu sam dakkaru ko loolu affaire bu jigéen la ab gone bu góor gone bu góor bi dégg nga dem tam xolal sol yére jigéen di jaay di jaay affaire jomba ñaaw jamono soppeeku bokk ne di togg lu la neex waaye cere lañ ci daan baaxoo di ko reeree si guddi gi comme nax nga spaghetti baa nga macaron baa nga petit pois waaye nu cere lañ xam ne nu waa Kajoor nu Kajoor la nu cere ji dugub la doon suuna nga soq ko wal ko fuuf ko sibati ko tay ko mu doon cere tay ko di suba ko laala ko teg ko daa ngi tabal yu bëree bëri tam ay barkeelu barkeelu yi lenn yàpp taws gi gàtt ma nga dem tabal ko ci ñeex mi barkeeloo ko yooyu yëpp du boo gisee xool ay léemaay la gi nga ceerno ci gudd gàtt mooy góor njaay la wax lii li fi mag ñi nekkan samp ko fi buñ ko bëggee jëlee andi am ci wax nag soobate sa maam la soobate sa baay weddi sa ndey weddi sa baay la waaye fa tara ko du teel sam di dox waaye lu mag ñi nekk lislaam kenn du ko jële fii ndax lislaam mooy lépp jamono métti lool ba am na ñu amul njëgu ginaar Gora Ndiaye jàpp ni nag yi ñu daan jënd di ko bokkoo jot na ñu indi waat ko nag yow ci digg pénc gi baa ron séengi gi baa ron kàdd gi wala guy ga lu xëy suba teel xool ko ku ne nekk sa gër ko yi gër ci bare bare ñaare ñaare ci yenn dëkk yi ñu yàlla mën a gan ngay borom mi teraanga jokk raw yónni ci dëkk bi su boobaa mu nag ñëwee ñëpp jënd xool naw yi jàkkaarloo yi xool ko géwél yi rene na yu fees ko fu a fee toj baat bi toj bopp bi toj lépp mata ko nag ay mata ñi bu dee naw ni jaay tong-tong la tong-tong nag bokkul ak luñu séddoo tong-tong mooy mata junni mata boo ko degee day mat juróomi kilo bu ñu ko saamee kër gu mag bu ko déggee am basiru am wala Mouhamadan Njaay bu tegee am naram yóbbu këram da ca mën a xewlu loolu mooy mata yi mata junni wala mata juróomi téeméer du bokk bokkaloo ko bokk bokkaloo googu day déer ma ne ndax ganaar ñëpp mënu ko am cee na fee tam libar bu Basiru Fay mën naa am fa tarakalaaw gëleen fa ab gàtt wala bay rendi biir këram Basiru Amar waaye keneen amu ko léegi bu bokkee nag naa yore yeew ko ci digg penc bi ko ñëpp di ko xooloon loolu fees ko nag mata ko ñu bokk bokk loo ko kenn ko teggi sa nar yóbbu sa kër kenn du ko waat kon loolu dellu si waat ko day baax dafa jot bésu tamxarit xew-xewu diine yu bari xewoon si tax ba saa su dellusee ñu ëpp ci jullit yi di ko màggal fii ci Sénégal ñu ko fi màggalee si diine ak aada loolu nag di indi xalaat yu wuute ci borom xam-xam yi